fii li ne ci yi moom bu ma ciy wax sama xol day jóg ndax la ma fa dund la quoi nekk innocent encore koo xam ne xamul kaso nekkul kat ñu fab ko jaay ko doole yóbbu ko kaso boole ko ak ñoo xamante ne nii dañuy ndamoo ay mandat dépôt am naa dix mandat dépôt am naa neuf mandat dépôt nga wax ak moom tuuti mu ne man crime moo fi indi comprendre nga nga demaat ci keneen wax ak moom tuuti mu ne man dama sàcc dix millions ñëw fii comprendre nga man bokkuma ak yow man damay job ci biti te moom lim lim naan moom lay joob mooy day dem sàcc xaalisu jaambur ñëw ci kaso yow nga xeex ngir sa réew ba dugg ci kaso boo gëmul sa bopp man ngaa sax mel ni ñoom mais ñun dafa am lu ñu man mi di wax ak yow nii commerçant la bisu ci la amul dara loo xamante ne nii soxla naa ko jamono ji ma toll nii diiraa ma ne ci kaso bi a ah, du ma ne soxlawuma dara de waaye lépp loo xamante ne nii namoon naa ko rek dugalal nañ ma ko à grâce nag famille famille bi quoi lu ci mel ni ñoom Bamba Xaadim Gueye ak Xaadim Ngom ak ñoom Ismaïla Dia ak euh, waa Pastef yi encore seetaan nañu benn yoon donte ne ñun ñooy taxaw seen bopp ci biir kaso bi mais ñoom diiraa bi fi nekkee chaque jour lekk ak naan lu ne la ñu dugalal bilaay wallaay te tegul leen ko encore. est-ce que mën nga man nag sama arrestation ñoo ngi ma jàppee euh, Grand Dakar bi ñu ma jàppee ñoo ngi ma jàpp 31 juillet jour bi mandat de dépôt Ousmane Sonko ma jàpp mi ñoo àndoon ñoo ngi ma jàpp 11h man bi ñu ma jàppee moom dafa rëcc quoi moom jàppuñu ko bi ñu ma jàppee 11h midi lan mu commencé di ma torturer di ma dóor ba 18h quatre euh, agents de police ñoo ma jàpp ñenn yor seen i kagul dara lu ay ak ay livres des fois sax yat yi bu demee nii ay coup la lay dóor dañ lay dóor ba fi ñuy bindee PV muy taabal bi ordinateur yi ci taabal yi la la ñuy yàlla xam na ne dañuy wiiri ci ron taabal yi la lay fekk dóor la pat nga génnewaat ca beneen côté bi loolu lépp dund nañ ko ci nag mais projet bi jaral nañu ko parce que ñun liñ doon xeex ba dugg ci kaso yàlla xam ne tey lañ ko gën a gëm donte ne dund nañ ci ay coono dund nañ ci ay jafe-jafe mais maanaam ñun li ñu dugal kaso la ci ñun bu ma duggee kaso ngir xeex ba euh, xeex ngir réew mi xeex ngir changement changement boo xamante ne nii amaana buy changé sax man fekk na jëm naa màgg wala pour sama njaboot ñoo koy jariñoo mais dama doon xeex ngir réew mi changé di xeex ngir développement réew mi comprendre nga ñu jaay ñi doole kaso bi metti na trop kaso bi yàlla xam ne metti na trop ndax paquetage bi problème mu ndox danga koy am doo sangu sa yaram di xasan boole ci seddaay bi nii nii boo génnee ci biti buntu néeg bi sa yaram bi day mel ni lu am ay picc ndax seddaay bi mais boo duggee ban ban tëdd jot na ba ban raase ba ngeen tëdd même pas deux minutes sa yaram bi mel ni dañ koo fóot ndax ñàkk metti na trop mais nag ñun projet bii nga xamante ni moom lañ xeex ba dugg ci kaso wallaahi jaral nañu ko te tey jii ba amaatoon itam noonu la ñuy ñëwee waat amul dara loo xamante ne nii ñoo ngi ko ciy rëccu te itam cubuñ san ci biir de benn yoon billaay wallaay lépp loo xamante ni dund nañ ko fa itam danoo yaakaar projet bi moo ko laaj ndax Ousmane Sonko depuis au début waxoon na ne projet bi li ci gën a euh, yomb mooy ñàkk sa liggéey wala dem ci kaso te li mu wax am nañ ci preuve ndax gis nañ depuis 2021 ba léegi ay bakkan yu root amaana man mii yàlla saa borom da koo neex boolewuma ci ñooñu nekkoon 2021 mënoon na maa bokk ci ñuy lim ay moor yàlla dogal ñu jàpp ma 2023 muy 31 juillet ñu libéré ma le 15 février 2024 euh, loolu nag sant yàlla la parce que am na ci ñoo jëlee jëlee nañ ci ay laago mënatuñ dellu ci seen liggéey ñenn ñi dugg nañ ci biir bàmmeel bay laa yow mi di dootuñ wàcc ci kaw suuf man maa ngi nii tëj bi bi ñu ma tëjee xam naa ne mu yàgg mu yeex damay génnaat incha allah te bu ma génnee nekkaat ci samay activité tey bi ñu lay génnee dañ la démb dañ la woo rek ne la jël sa saak waaw man nag woo nañ ma enquête ñoo euh, kii man de dépôt le 3 woo nañ ma enquête le 25 janvier bii ñu génn nii dem nañ ma woo grève na ma jëlal say bagage libéré nan la mais LP la la may yaag siis bi tàggoogu leen à tout le moment mën na laa waxaat indi la ci kaso vidéo bi bu ko gisee nii mën naa ci delluwaat kaso mais bu ma delluwaatee kaso itam xam ne ma lu ñaaw waxuma lu ñaaw xeexuma ngir sama intérêt damaa xeex ngir intérêt réew mi te jaral na ma ko jërëjëf jërë ngeen jëf kontaan naa di sant nag encore waa Réfane waa Réfane amul seen fay yàlla xam ne Réfane Réfane bari na arrestation trop ci manifestation yi actuellement cinq des na ci biir ci biir waa Réfane ñoo xam ne ñoom la ñuy xaar instant bii nii nii nii nii. ñooñu ndax dégg nga jàpp nga ni ñoom dinañ leen parce que ñenn ñi euh, bu fekkee Fallou Sow ak Jibi Thiaw ñooy rentré euh, kii euh, vendredi bi passé lan leen lan leen arrêté. ñoo ngi leen joxoon rendez-vous bi ñu leen di mandat de dépôt le 26 le bii nii nii nii pour tribunal quoi enquête xam naa nag yàlla mën naa dogal ñu libéré leen tey jii nii mais daal lépp sant yàlla. sant yàlla bu baax a baax di gërëm gars yi nga xam ne jàppale nañ ci kaso bi ñëpp muy famille bi di sama jabar di sama mag ay ñoom Modou Ngom ñoom Xaarim Xaarim Gueye Ismaïla Dia ñoom Demba Dia ñoom Thierno Gueye gars yi ñëpp daal képp koo xamante ni surtout waa marché Tilène uma seen fay taxaw nañ ci torop sama kaso bi fii muy bisu cee jaaykati or yi yàlla xam ne ñëpp ma ci taxaw kontaan naa ci ñoom ñëpp sant naa ñëpp gërëm naa ñëpp jërë ngeen jëf jaajëf Euh, kii di euh, détenu dañ waaye nee na ci rek euh, xeexul ko daf pour intérêt da ko def pour pour réew pour intérêt pour intérêt askanu Sénégal la ko def defu ko pour euh, pour boppam kon ngeen déggoon ay témoignages yu daw yaram yu metti lu ko dalee euh, le 31 a ah, ñaari doomu Refane yi taxoon fii léegi doon wax seen arrestation anam yu leen jàppee ak torture yu ñu jot a dund par rapport ak seen arrestation ak weer yi ñu dund ci biir kaso Rebeuss gi ñu taxaw fii tey ah mu doon ay témoignages yu daw yaram yu metti ah yoo xam te ne boo ko dundul rek comme moom ni mu ko waxee léegi rek doo ko mën a nettali doo ko mën a euh, wax kenn kon euh, donc aussi tamit ci kii njëkk a moyen mooy euh, monsieur Fall moom mi nga xam ne ne rek ñu fi nekk ci ay ndaw ci immigration clandestine parce que xam ngeen ne depuis janvier 2023 des milliers des milliers de jeunes yoo xam te ne jëlee nañ yoonu gaal gi wala jëlaat nañ yoonu gaal gi parce que Barça wala Barça ko doon lu bees en 2004 jamonoy Abdoulaye Wade bëri woon na ay départ ndaw yu bëri daw génn Sénégal jaar ci gaal gi moom mi ngi xamal ne rek ci ay euh, ci témoignage am am na ay ndaw yu bëri bari moom nem na sax ñi fi nekk ci immigration clandestine ñuy jàpp ci yoonu immigration clandestine ñoo ëpp détenu politique yi kon doon mu situation bu doy waar boo xamante ne peut-être laaj na gëstu laaj na toppaat xool euh, information yi bu baax a baax ñaata ndaw ñuy jàpp ci yoonu immigration clandestine mooy Barça Barça ndaw yi doon jël gaal gi ñaata lañ ñoo nekk fii parce que informe révélation la bi ñu témoigné euh, bi ñu euh, détenu politique bi defal révélation en direct léegi nii ah kon euh, donc ah ba léegi ñu ngi fi rëbës yéen a ngi seen xarit yaa ngi nii mbokk yi dëkkandoo yi andi jàmm yi waa Pastef ah ñu ngi fi seen leader yu bëri bëri ñu ngi ñëw taxawee ah, gunge fa seen i tertu seen i mbokk militant seen i xarit seen i doom gannaaw juróomi at juróomi weer. ñi juróom benn weer ñi fukki weer mu doon ay situation xam ne dundoon nañ ko depuis mars 2021 jàpp février 2024 mu doon ay manifestation lu jëm ci euh, procès Ousmane Sonko mu jëm ci appel à manifestation yoo xam te ne jotoon na am ci dëkk bi ñu réprimer ko dans la violence des centaines Euh, selon des organisations selon Amnesty wala selon des organisations de la société civile euh, dee yi bëri na ñii ñu ngi lim vingt neuf ñii soixante ñii près de centaine kon donc c' est difficile de mettre un chiffre dans le euh, pour le bilan mais ñu jàpp ne rek ñu fi jot a ñàkk seen bakkan lim bi takku na takku na ñu yàqule lim bi takku na takku na barki démb rek ñu ngi jooy ñetti ndaw yi ñàkk seen bakkan le 9 février muy di l' étudiant Alpha Yoro Tunkara ñàkk bakkanam fële ca Ziguinchor kële aussi dem di élève élève de saison ans Lami Landing Diédhiou ñàkk bakkanam ci anam yu doy waar ñuy woote rek euh, ah enquête foog mu am ñu bëri ñu ngi koy warut euh, des sans enquête ñu bëri ñu ngi wax ne ne loi amnistie bu ñu bëggoon a def bu ñu doon rumandaat warut a jàll ndax euh, acte de acte de violence yeeg répression beeg. par rapport ak sénégalais yi ñu jot a dund 2021 métti na trop ba waruñu bàyyi mu sedd parce que Seydi Gassama sànq rek ci page am mi ngi doon woote ne euh, euh, amnistie bi moom àndu ci te du si ànd daanaka enquête dafa war a am ñu leeral lépp loo xam te ne askanu Sénégal dund na ko depuis mars deux mille vingt deux mille vingt et un ba juin deux mille vingt képp koo xamante ne lor nañ la ci yàqule nga ci ñi nga xamante ne nañ seen doom ñàkk seen i borom kër ñàkk seen xarit war na mën am enquête bu indépendante enquête bu libre ñu situer les responsabilités de même que aussi ñi nga xam ne jàppoon nañ leen si yenn conditions yoo xamante ne c' est trop léger yomb na trop xel nanguwu ko war nañ am enquête xool ci yenn anam lañ leen jàppee woon ci yenn condition lañ nekkoon parce que yéen ngi dégg léegi ci benn détenu mi ngi doon euh, euh, ci torture yi mu doon dundu ak bañ ko jàppee le 31 juillet jour bu ñu def mandat dépôt Ousmane Sonko mi ngi wax ne ne torture façon xeetu torture bu nekk dund na ko dem nañ ba dóor ko pompe à gaz doog na toog na 40 minutes bët yi mën koo ibbi kon donc muy situation xam te ne ah c'est c'est c'est triste c'est malheureux ah, c'est domage que Sénégal di ko dund moom mu ngi koy rappelé sax depuis 60 euh, amoon nañ ñu doon taxaw pour xeex démocratie pour xeex liberté Mamadou Dia mu ñu koy rappelé Cheikh Anta Diop tey jii ñoom boo boo déggee seen témoignage rek détenu yu génn ba léegi ils sont ba léegi amuñu benn ragal ah ba léegi fu ñu taxawoon ah si seen i kàddu rek fa la ñuy taxaw ba léegi ragaluñu delluwaat eh, kaso ndax ñoom am nañu loo xam te ne projet bi Ousmane Sonko bi porté ñoom dañ ko gëm seen kàddu rek di nga gis détermination seen kanam jàmbaarte boo xam te ne ñiy jot a génn démb dem ak tey ñu ngi koy témoigner ñu ngi koy dégg ñu ngi koy gis en direct à travers euh, les médias en ligne kon donc mu doon une journée historique pour le Sénégal pour l'histoire politique du Sénégal pour adduna euh, tey jii Sénégal euh, doon na ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ñu ngi koy gën a bàyyi xel par rapport ak événement yi fi xew depuis mars 2021 rawatina démb ak barki démb conseil constitutionnel décision bu mu jël annuler report élection bi tey Macky Sall aussi tamit jël na décision boo xam te ne dañ koy saluer moom euh, mi ngi xam na rek ci benn communiqué bu jógee si présidence dina respecter lii di euh, décision conseil constitutionnel dina amal élection dans les délais de rigueur maanaam avant le 2 avril dina organiser élection kon donc ah euh, muy situation boo xam te ne moom la ñu fekk fii rëbës am naa ni dinañu xuus ci kanam xool peut-être dina am ñeneen ñu génnaat ñu jéem yeneen témoignage kon donc à tout à l'heure